bismillahi rahmani rahim sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallama taslima alhamdulillahi lazi allama al insana ma lam ya'lam tuma salatu wa salamu ala nabiyihi safiyihi la aylam wa ala alihi wa sahbihi ma uhmila fawqa al alwahi wal awraqi al qalam wa ba'd asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ala kulli muslimin wa muslima ala kulli muminin wa mumina fil alam wa rahmatullahi lil alam ndax miséricorde de Dieu ni ko ku tedd ki di waxe borom naan ko irham jame alwara loolu moo tax bu ñu nee ñi gëm ni ñi nekk ay jullit parce que bu ñu nee ñi nekk ay jullit rek tudd nañ ñi nekk ay murit waaye ñi nga xamante ne bii gëmuñu bay nekk jullit bay nekk murit ñooñu du tax ñu génne leen ci ndax ku tedd ki di mu nekk sauveur de l'humanité nu bëgg leeral rek ni ku tedd ki ay waxam du deñ moo ni ñu ñuul ñi ak ñu weex ñi ñëpp dinañu ko wuy si ñun ci sunu yëg-yëg ak suñu tolluwaay ñu jàpp ni ñu weex ñi kon am nañ ci rôle bu nu wara a waaw ngeen ñu xam ni Serigne Touba kat mooy sauveur de l'humanité mm-hmm. loolu moo tax ñaari tànk yi ñuy doxee ndax fii ñu toll nii ni nga xamante ne bii noonu la ñuy saafante ak mbokki taalibe yi ku na xam na ni buñ ci jubloo diggante farata ak sunna ku ne xam na ni sëriñ Maamoor ibnu Cheikh Mouhamadul Mourtada radiallahu anhu ku ne gis na liggéey bi muy def à travers le monde muy fii ñu nekk ak feneen ak feneen ak feneen kon baynal fara idi wa sunnan kooku moom jàpp naa ni ku ci sa waar nara booy ci ñun itam moom waaram wi nga xamante ne bi mu ngi set di lay yóbbaale waaye dafa am beneen aspect dafa am beneen aspect mooy li ma wax léegi ñi nga xamante ne bii jéemu ñoo xam lislaam jëmmu ñoo xam kanay Serigne Touba te ñoo ñu yàlla ci yërmandeem bu ko neexee ñu soowee ci ku tedd ki ndax Serigne Touba moo ni amara ni rabbi bi an usarriha bi an nii malazun wa mafzum mm-hmm. waaw kon léegi ku nar a sowee ku nekk tey nit ku weex mbaa ngay nit ku xonq te nga xam ne suñu borom baaxewu la nga découvrir ku tedd ki nga xam kan ay Serigne Touba foofu dañu fee am liggéey sur le plan culturel moo tax ñuy doxee ñaari tànk bii dañu bii dafa nekk tànk boo xam ne tànku ndeyjoor la religieusement bu ñu ci xaababalul c'est parce que liggéey bi ci war cheikh Mouhamadul Mourtada radiyallahu taala anhu bi ma ko fi bàyyee ak Serigne Mamor itam ku ne gis na doxin wi mu ci dox doxin wu rafet wi mu ci dox. Hmm. ba tax na wet googu duna fi sori waaye nag ñi nga xamante ne bii ndem ñëw nañ fi am fi fas yéene am fas yéene fi am juróom juróomi fan bariwul. ñi nga xam ne dañ leen a waroon a ziare ñu di ay mbokki taalibe bi di ay jëwriñ diggante fi ak Anvers. Hmm. ak ci Belgique yëpp ñooñu ñëpp teewul ñi ngi leen di ziar te di leen dig nag ni incha bu at mi jeexee mois de février ak jàmm incha allah war nañ fee amal lu ñuy tuddee conférence boo xamante ne bii itam incha allah buñ ca eggee itam talu bii dañ ciy am seen wàll hmm, religieusement tubaab yi am ci seen wàll temporellement sur le plan culturel waaw ñu ci sant ku tedd ki nag ndax ñaar yëpp la la ñu ba ñu maîtriser ko tudduñ ko jaawale hmm. bu ko defee mbokki taalib yi nga xamante ne dañu nu fee dégg te ñun ñu waroon leen a yëgal ne dañu fii ñëw te yëgaluñu leen ko ñu baal ñu ko xam ne lii yoon wi gàtt la ñoo ñëwoon yoon wu gàtt ngir juróomi fan rek wax nañ leen ko lenn itam ñu bëgg buñ ci eggee ñu koy bàyyi xel ndax téere bi nga xam ne ku tedd ki daf koo def te tudde ko laysal birru ñu demee ca alquran gis aaya ba sal birru an tuwallu wujuhakum xibalal mashriq bu nu bu bu bu bu fekkente ni téere boobu li nga xamante ne bi ku tedd ki wax na ko ci ñi gëm ak ñi nga xamante ne bi dañoo weddi ak ñi nga xam ne dañuy bokkaale ñi nga xamante ne bi noonu la ko ku tedd ki bindee fas yéene nañu lay sël birru boobu di ci jël ay junj bashiran wa naziran ndax itam nag wa maa arsalnaaka illaa mubashiran wa naziran waaw bu ko defee loolu dafa bokk itam ci liggéey bi du caa génn li ko tedd ki bind ñun dana koy jàng rek jéem koy yamale ci sunu bopp déedéet jamono bu nekk ak li mu laaj euh, te moom wax dëgg yàlla jamono bu ñëw jamono bu nekk jamono bu nekk rek mu jamono bu ñëw rek œuvre am maanaam li mu liggéey ci yàlla liggéey ko ci yonent bi ak alquran jamono bu ñëw day ànd ak jamono booba waaye nag ni muy ànd ak jamono booba itam dara bashiran wa naziran rek lay mën a doon moo tax nag lépp loo ci xamante ne bii du nuruwul lem nuruwul suukar donte daa ji daf ko daan da ci daan def suukar mbaa mu def ci lem itam lu ko ci nuruwul yi ñu baal ñu ko te xam ni mm-hmm. waaw ni ma ko bindee bàyyi ko fi rek noonu la ñuy jéem a xool da ay waxam moom kenn mënu ko interpréter kenn du ko jéem a interpréter mm-hmm. waaye nag di fàttali ak bëgg ñi nga xam ne soweeguñu ñu ñu sowee waaw ñu sowee ci Serigne Touba moom ma ko wax war xam bi yàlla xal moom moo wax yàlla ni ko yërëmeel jaam ñi ci man mm-hmm. jaam ñi nanga leen yërëmee ci man mm-hmm. mi ngi mel ni li mu wax ci jiri nii rek li mu wax suñu borom waaw ni ko rek eh, ñi nga xamante ne bi dañoo ñàkk seen i way jur na nga leen di bégale ci man ba ñu fàtte seen i way jur waaw waltu bashir biyal yataama dawaaman ansihim bi aabaahum kulla xiini waaw bu ko defee ñu xam ne daal ñun li ñuy tax a jóg wax dëgg yàlla du ñu ko soppi fii ñu ngi koy tal mooy loolu rek mooy fii ñoo ngi koy tal suñu liggéey mooy no xam ni Serigne Touba maanaam mooy yoon bi gën a gàtt ci sowe ci àdduna ak al axira hmm. wax nañ ko barki démb Njaay moo ne li kulli man biya taxallaqa naja hmm. min kadari dunia wa fi yowmi naja hmm. <laughs> moo ko wax moo ne illa yaxaada laahu maa lam yëkku ni wala yakuna abadan li mumkini moo ne ixtasani laahu bi maa lam yëkku ni wala yakunu li siwaaya békku ni moo ko wax eh, moo tax nag eh, ñuy baaxe sunu bopp di baaxi mbokki talib yi donte ku ci jàngul yitam nga fexe naf na fi ba mokkal benn bayit ci ay waxam benn bayit ci ay waxam waaw ndax isa xattatu tazza arshullahi waaw maanaam buy bind waaw buy bind maanaam fa nga xam ni mooy barabu yàlla ba ñuy wax ni mooy fiyeefam waaw turan ba ñuy wax ni mooy turan mooy turanu yàlla mooy mooy toggukaayu yàlla buy bind moom day bag bagi waaw te malaayika yi ko wër yëpp ñoom dañuy sabal loolu moo tax benn bayit képp képp képp lu waaye tëlee tëlee jàng boo fexe ba mokkal benn bayit waaw def ko muy sangaanaay waaw ndax itam al ihsaan illa ihsaan te ku tedd ki moom lennam loo jël lu nekk bu nuroo benn itam bu ko jàppee waaw bu nuroo benn def ko làmp làmp moom day leeral lëndëm gu bari moo tax nag euh, fii nu dugg nii ñu koy tuddee mu di daamara ñu koy tuddee limousine <laughs> ñu koy tuddee limousine fii ma dugg nii jox na ma ci juróom-benn donte bi <laughs> jox na ma ci juróom-benn yoo xam ni euh, mu jógee ci mu jógee ci ñoom ñu xonq ñi ñëw senegal Eh, loolu tegtal la ci Zaire dugg gi ma ci dugg nii di def communication bi bëgg mbokki diaspora bi jot ci loolu moo tax ma dugg ci di ko defee nii ak yooyu fi ñu toll sax bala yàgg dina ma ci joxaat beneen boo xam ne nag dama koy téye ngir bàmba fépp duma ko jox kenn asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa